mi ngi nii toog waaw Lamine Lim ci bii mi ngi nii toog moom tamit mi Fadal Niang Dakar Buzz sunu mag Iba Kane mi ngi nii toog ñoom ñëpp ku ci nekk tey dinañ la jox kàddu nga poser question Eumeu Sène question bi nga xamante ni moom moo ko bëgg poser ci digganteem ak Sa Thiès Sa Thiès la waaye màgg na dugub Eumeu Sène Sa Thiès ko xam xam ni dafa mën bëri ak lu parce que démb bi muy bëri bëri ci arène nationale bi ne gis na façon bi mu bëri. ñu ne. ñu bëri ne sa euh, Eumeu Sène na moytu ak Sa Thiès di laabu parce que saa boo yëkkatee laabu rek Sa Thiès à tout moment mën na la bët ñooñu lan nga leen di wax d'abord balaa ma lay jox faatal di dugal. asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu di sant sant yàlla bu baax di julli ci yoon bi tey bi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm suñu ñaari waa ñu di ñaanal waaw ma ne ma ne Sa Sa xam-xam ni attaquant la dafa gaaw eh. te bërikat la te ëmb day xeex te buy xeex day laaw. boo xeex ak Sa Thiès est-ce que wóor na nga xeex ak nga jàkkaarloog Sa Thiès xeex ak moom di indi laaw parce que saa boo indee laaw mën nga laa bëri. waa kenn du dem nag guerre di wax say arme. waaw waaw a préparé. que loolu moom du kenn dem guerre di wax arme yi nga yóbbu. kenn dem guerre di wax arme yi nga seen a ngi nii sa pare ñu jox liñ ci biir wala lañ pare ñu jox Babacar après jox suñu mën bi ñuy bëgg jërëjëf Baye Balla assistant de ñu presse ndax bu ñu presse la ak bëri yi dafa organisation jaarale te lii moo la ñu soxla mooy rafetlu nag li nga xam ne moo la soxla bu jënd tey tey boo dem ca bëgg ñu wax ne baax na ko ñu bu ay nit ñu waree ànd ne ànd yàlla tax kon nit ñi wax lu ñaaw ñu bàyyi woon nga xam ne boole boobu nag ñuy tàqale Eumeu Sène nga jub bis boo xam ne nag bis boobu laa jaaxal ndax wax naa ko sànq keroog bi Balla Gaye de jëlee gaal bi seet ko Pikine daan bi sàmm yoon bu fekkee jeexal Pikine nekk àjjum taxaw ne day jeex te ba nga jógee ñu demee jeex yàlla def it mu jeex waaye da nga nekk xale boo xam ne jàpp ngeen taxaw ci kanam moom parce que def def la doon def ci ñu sax do ko wàññi gëcc dama seen am wàcce loxo moo dem dañ ko ko dama seen maam ñaari question benn mooy ndax bëri ko ma seen bëri saa seen daw dama seen mën ko ko ko ko ko waaw bëreetu Bombardier moo gën a diis danañ ko gérer jaaxal ñu jàmbaar yàlla baax na ñu jël yow <laughs> jaajëf beneen bi dafa am ministre bi nga àndandoo ne la a la EPSN ndax ci tam ci ci yow nga war a bëri jox tay la pression na nee na comme xale yi mi la jiitalee waaw dama ne bis bu daan dox waaye ndax li li ci yow xale yëpp àndandoo di ama seen yow la muy premier génn bi nga war a génn boo bëree jox tay rek ndax ku ne xam ne boo ñaa ngi a Ama Baldé ngi xaar te yaa war a jàmbaar loolu tàmm naa ko nekk na lu ma tàmm loolu amul benn problème zéro pression la ñuy deme incha dem ci kàttanu yàlla li ñu war a yërëm père yi rek incha allah rabbi ñu ngi soog nañ ci yaakaar baax yàlla mi am ndam nag yàlla jaar suñu borom may loolu te bàyyiwuma ko sa xel <laughs> jaay jër mais mais état état physique bi état moom la Sa Thiès ci mobilité gaaw rapidité bi nekk est-ce que Eumeu Sène mi ngi calculé loolu Eumeu bu ñu waxati dëgg xam ne combat capital nga am parce que expérience face à la jeunesse ñii ñu ne Eumeu Sène expérience baa ngi waaye Sa Thiès doole bi ak sañ-sañ bi mi ngi fi ak mën a fi. non loolu problème jàmbaar suñ tëddee dañuy nelaw waaw yaakaar naa ne sëñ bi yàggatul yàlla baax na incha allah yàlla yàlla suñu borom may dal mais amuñu lenn lenn am xel ñaar teg ko baax. 84 la juróom. kon ñu jox euh, Lamine Ka Lamine Ka aba ah, kon Ibou Bakar Abou Sefa euh, Abou Sefa boo paree nga def boo doon ta après nga jox Babacar ku am rek ana ci ni dafa ne ceer mi ni ceer jërëjëf

am na bi moo a indiwaat beneen état bi waaw parce que Pikine soxla rek combat bi ñor waa Pikine trop ma xam ni li sumay yëf yëfu Pikine la waaw te lu may wax rek ñun ñu mën a def pour Pikine bëgg def ah, waaw parce que fi lañ dégg champion d'Afrique dégg roi des arènes lépp Pikine lañ ko àndal tey zéro la ñu commencé doon lu doon kon combat bi dafa nekk combat bu ñu ñor liggéey ci ba coriace liggéey physique bu baax liggéey musculation def ci ko yëpp yàlla suñu borom nag moo ñu ngi ñaan yàlla suñu mais liggéey nañ daal loo xam xel dal na macha allah. adversaire jàppee seen borom bu jekkee waa làmb nag parce que ak i adversaire am ko ak i mbërëm yi ngay dajal ñooy ñan loolu c'est làmb bu juum daal mais nañu xool adversaire waaw loolu c'est important waaw mais nag nit bañal maninam wala champion la champion nangul waaye nag li la mën a xam mooy làmb bu juum daal am na waaw ñu ngi nuyu ñun daal bu baax làmb la nag waaw làmb la jóguñu tamit di ne lii la wala ne mais daal ndam yi ñor nañu torop torop torop te incha rabbi lu koy ñaan man surtout waaw li mënoon ak Sa Thiès instant yow boo si laaj sama te yéen ñaar yéen ko même baax parce que li ñu wax tout le temps rek Pikine dañuy nopp nest daal la. waaw toogaay bi lii rek moo waral ma ngeen wax tout benn bopp la comme tey ni ñu dajaloo nekk benn mooy suñu force dajaloo mooy suñu ban bale tey bu la ko benn benn bu ko ko dam mais bu ñu bañ ko bale bi jox la ko da ngay lem muy lemu rek mais du mos a dam kon mbooloo mooy doole ñu ngi ciy sant nag ñi nga xam ne aussi am initiative bi bon bu ñu ne fan si këram Ama fan si këram ko ci fan si kër Mbour Sène suñu mag yi dem léegi ñi ku ci mel ni Ladian Pape Sarr Pathé Baldé surtout Pathé Baldé moom mention spéciale la voilà tey Pikine yëpp booloo nañu te booloo moo doole man lii rek laa boot sumay rak waaw boot sumay rak kon nag bon yàlla yàlla mos a ci seytaane ci lépp luy lore Pikine benn bopp rek comme xarit du dëgg ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon képp ku fi rek wala képp ku nekk mbër fu mu di nekk rek maa ngi lay ñaanal yàlla suñu borom li nga bëgg ci làmb yàlla defal la ko parce que làmb dafa nekk sport boo xam ni dafa fiir loo ko boole rek mu bàyyi la ak moom te bis boo ci day fekk jàng métier wees kenn képp ku fa nekk ba ci yaaw jaal maa ngi koy gis maa ngi koy nuyu ak jaay ak yaaw am taxawaay yi dañu mën a am gëstu bi ñu mën a jox ko taxawaat gis ay vrai vrai Pikine waa kenn di wax ay trois lañ mais kon yàlla xam ne moom moo xoolee émission bi digg yëpp nelawoo parce que dama xam ne am nañ naqar am na lu leen métti waaw da ngay xam ne ñii ay cent pour cent Pikine waa lañ waaw trois personnes lañ mais bañ taxee wax keroog nelawoo moom kon nag ñun booloo rek mooy doole Pikin supaya boobu saa ci seen dalam, nelaw mais nag tas Pikin pour mu dugg suñu biir mën a ràññee duñ ko nangu du dëgg voilà loolu la tout juste rek combat Pikin nekk ci ay quelques tolof tolof ndam li ñu soxla ko am def ñu boole doole bi yëpp combat bi kese foog ñu ngi koy ñaan yàlla borom defal ko waaw Jacob ñu ngi lay félicité bu baax ah. waaw gars yi kontaan nañu trop ñu ngeen tàcc. Euh, di encouragé tamit aussi Rigati euh, Albouri Albouri champion la waaw ba pare démb gis naa Albouri def fair play bu nice ma wax ne ko défi bi yàlla nekk sangat ci moom ok mu continué carrière mu ko bëggee beneen mooy Doudou Sané. du saane gars yi kontaan nañu trop trop trop trop ñu lay gis bu baax du saane jantal mel la te wax dëgg yàlla xale bu yaru la gëm ku baax moo bëgg Pikine tamit aussi ñu xel bu baax a baax a baax a baax prochain combat génn Pikine lay représenté ginnaaw village bu mu dëkk ñu koy tuddee bu baax Ndiaga bi waaw Pogala bu ah, ko waxee sax. Jaga Jaga Thiam Jaga Thiam suñu rakk ñu koy ñaanal combat bi ñu yàlla may ko ndam. amiin am seen bi mu dugg ci combat bi bisimilah maanaam tam nañ ko wax mu baax ñu dem nañ topp ginnaaw champion la du ko mbër defar bu baax làmb noonu la làmb moom su waay tey mu neex suba mu naqari gars yi am dara looy ragal incha allah waaw après moom ah, maa ngi lay ziar ah di la mu ni man moom ma lay laaj kër ci yow laa dégg xam nga ko mooy parce que sama dugub bi dafa yaay a laaj wala mu may nga jàpp ne yow fi nga moo tax nga wax loolu wala nga daal di kii ne yow saa kees bi ñu la daal dafa gën a fekk xale mu la war a doole. moo non du loolu parce que ñun dañoo judd ci sport xam sport bu baax des fois nit dina la gis sa forme physique wala ñu gis ma salle mais entraîné kese ñu yaakaar ne musculation rek laa xam combat bi lu ma liggéey ci physique liggéey bokk ci musculation parce que musculation maximum deux trois fois bu semaine bi mais nag liggéey naa bu baax maa ngi nuyu nag aussi suma coach Mohamed mu waaw Mohamed maa ngi lay nuyu bu baax moom mi xam ne tamit aussi sonn nañu combat maa ngi ñu ngi nuyu tamit aussi def sport bi salle bi ma nekk Kanji maa ngi koy nuyu bu baax moom yor wàllu ak Laay Laay tamit aussi ñu koy gërëm baax moom moo yor dèjà fii ñu nekk nii sañ stade bi moom moo yor boxe AS Pikine Kanji moo yor équipe nationale boxe waaw ñu ngi leen di nuyu bu baax suma kër si yëpp jigoo tamit ñu koy nuyu bu

maanaam mbër. athlète dafa aay ci mbër. ci mbër mais ñu ñëpp ay athlète lañ ay combattant lañ <laughs> bañaluñ ko <laughs> mais ñu ñëpp ay athlète ay combattant lañ. saa man daje naag bu nekk daje naag champion bu nekk bëree naag ñoo xam ne ëppee nañ ma cinquante kilos wala trente kilos boo mbër jee kenn gënu ko métti ci làmb kenn gënu ko tàgg. plus de cent ñaata kilo la da lay attaqué sans contrôle ah fa ñëw ñu dalal ko ba mu dal liggéey lu ñu bëgg a liggéey man nag wax mu néew ma ko quoi maa ngi noppi rek mais le cinq ah am jaay moom danaa ko saa kees bu mag bi des ndax xale la day ñëw bu mu defee sa kaw la jëm am na ma su ñëwee combat bi ñàkk ñëpp a ci jóg dem te ñu ngi koy xaar ci ñëw bi des mu ne li ko saa def démb pour mu daanu mu ne dimanche sama seen dañ def lu gën a gaaw loolu am jaay moo wax loolu koo mën a fan ba waaw dañ ko nangu bu wax amin parce que tamit kër si suma saal ñoo àndandoo Mbapat Abim Ndiaye lekk na suma laaxu ngénte waaye yaayam suma bàjjan la suma tante du dëgg kon Abim c'est la famille mooy nekk du tànk ba léegi ñu xam bu baax tamit xam na duñu liggéey bu baax mais jàmbaar man mënewuma wax wala ñëwal nangam la cinq incha allah mën a jàpp sax ni ginnaaw suba la waaw mais liggéey na li ñu war a liggéey ci lépp làmb des fois nga bëgg mu gaaw mu yéex des fois nga bëgg mu yéex mu gaaw trop mais nag préparé nañ lépp te macha allah yàlla baax na yàlla may ndam. Parce que

waaw xam nga nit ñi moom dañ may jàng mais mënu ma tari surtout kër si wala gars yi nekk ci làmb bi mën nañ ma jàng mais mënuñu maa tari xeex dañ ko doon suma papa loxo bu neex mun xeex loolu deret si li may wax képp ku nekk sportif nekk Pikine doon ancien xam boxe xeex laa a mën bëri foofu mais xeexu làmb ak xeexu boxe dafa am tuuti différence bi jàmm parce que boxe bu nga dóor séer mu nga def ay excuse mu nga def ay retrait yëpp mais làmb boo ko defee boo xeexee ñaar loxo mun nañu sonn kon xeexu làmb dafa am maanaam calcul mais box kenn du la sonn mais boxeur yi di wax yëpp ñi ci bëri bu ñu wetoon si ne ñoon ma la ci man deret la suñu ñun suñu famille jigéen ñi sax dañuy neex loolu la ñu mën xeex damay wax nag Pikine waay ñam ñu toll suñu papa génération xam nañu ok kon nag bon làmb ji incha allah nañu xool naka la ñu mën a gën mën a amorele ak par rapport lu xam ci làmb war mënuñu bàyyi ko loolu amul problème mais des fois man su duggee ci làmb bon c' est vrai jàmbaat da am benn allure wala benn sañ-sañ booy ñëwee boo xam ne waaw rage boo xam ne mu nga ko ñëwee sans nga bañ am contrôle mais il est temps pour ñu xoolaat bu baax mais la cinq incha allah yàlla baax na daal man mënoo ko ah non ragaluma dara jàmbaar ñu dañoo tarbiyu làmb dañ ko tarbiyu ragaluñu dara làmb la nag mais ñu ngi ñaan yàlla suñu borom non non loolu moom moo tax bëri na rek <laughs> jaajëf. jërëjëf léegi nag xam nga xam naa ñu bàyyi la nga woote ñu bàyyi la nga woo ci wàllu mobilisation bi wax ak supporters yi naka la ñu ko comme ni ma ko Fala Balde waxee. waaw taxaw sama ginnaaw di wax tamit yi bay waaram mbëri nekk suuf wala kenn ki ñu mel ni Saabu nga ko ratel am xam ne ñu suuf di ñëw leneen gars yi bàyyi xel bu baax a baax waaw maa ngi bëgg a ñàkk a yóbbu ñu ngi xam nga xam nga fii laa defee suñu pour ñu teg aussi waaw waaw waaw ba gis jigéen ñi bu combat bi jege seen i cent franc seen i deux cent dañ koy dajale ñu jàpp ci combat bi ma am waa Gambie nag tamit aussi maa ngi baax ba jàppe ba tey baa ngi yàgg na ñu nuyu sama mbokk séeréer ñu nuyu sama mbokk Isaaxa maasul spécial Isaaxa Diop mu song ci Pikine nag yàgg na boobu ëllëg dama jàpp Isaaxa moom mun naa Pikine bu baax moo duggee tamit aussi day nekk suñu combat ci suuf mu maire de la ville euh, Abdoulaye Dibo Abdoulaye Dibo tamit sonn Thierno Lam tamit aussi kuy sonn ci waa Pikine la mais Ibou Dibo tamit aussi Ibrahima Diop Ibrahima Diop moom tamit kaaj ba merci kooku mention spéciale parce que suñu combat yi da ciy def ñu ngi koy nuyu di nuyu tamit aussi Khady Traza bu baax muy koo xam ne kuy sonn ci Eumeu Sène bu may jàppale sumay combat la di koy ñaanal yàlla ko yàlla gën a dëgëral parce que jàmbaar suma suma la suma gaay la ñu Khady Traza gis nañu baax ni nga jàppee ci Abdou Karim Sall ñu ngi lay woowaat bu baax ci combat bi parce que tamit si vraiment nit ñuy sonn si sumay combat la waaw ñu ngi koy nuyu bu baax. di nuyu tamit aussi suma staff yëpp waaw suma rakk yi ñëpp ku ci mel ni Boy Ndiaye Maam Saa borom Maam Góor Maxi tamit aussi. Max su ma gàttal mel waaw Max crazy Max naa sa taxawaay ci waaw dajgal lu ne dëkk lu ne ndax dama seen luy bu baax gis nañ tamit teewaay ak coono yi rek ñu dem communicateur yi maa ngi leen di bu baax a baax a baax waa Ndayane maa ngi leen di nuyu baax sama mbokk presse bi maa nuyu bu baax ay jaajëf baax.